dama leen bëgg a nuyu di leen andil nuyoowu président Macky Sall ñi nga xam ni moom moo ñu digal li ñu fi dajale tey weer yi passé ne monsieur le premier ministre dama bëgg am bilan wu yi Madame Pape Malick Mbappé tu as encore marqué un but Madame Pape Malick def compte rendu xëyu ndaw ñi yomb na mais je préfère ñu wut échantillon wan Sénégalais yëpp cette idée lumineuse et généreuse bi président am idée bi mi ngi porter ses fruits xam ni chômage musiba la liggéey sutura la loolu moo tax au cœur des préoccupations du président Macky Sall xalaatam yëpp mooy lu ñuy saafara liggéeyu ndaw ñi. amoon na ay instruments yu ñu créé gis na leen léegi muy DER muy AGETIP muy muy 3FPT muy yeneen cadre yi ma fi gis yëpp ma ne leen ne ñëpp ñëw ñu daje ku nekk wax ma langa nga def may rafetlu présence su responsable yëpp muy ministre Isaafa ministre Karim Fofana le grand champion le directeur général de l'AGETIP maa ngi lay félicité yaag sa équipe yëpp. Omar Ba directeur u CMU directeur de l'emploi. 3FPT case des tout petits. FONGIP FONSIS yéen ñëpp. xam président andee en programme xëyu alloué ko un budget sur trois ans de 450 milliards am ah, mu nekk dans 150 milliards dañ ko séddale juróomi pàcc juróom bi ci jiitu c'est un programme de recrutement spécial objectif bi ñu amoon c'était de recruter dans l'administration 65 000 agents ci métier yëpp moo xam santé la moo xam éducation la moo xam agent administratif moo xam sécurité moo xam yeneen métiers yi nga xam ne am nañ ko ci administration sur les 65 000 à date am nañ ci 66 000. te programme bi jeexagul c'est en cours ci féliciter ministre de la fonction publique pour diligence bi nga xam ne def na ko ba exécuter programme bi nga xam ni président de la République am na ko di féliciter aussi le ministre des Finances et du Budget pour la mise en œuvre diligente amul ci benn gàllankoor te taxul di réew mi war def ci yeneen activité ñu ngi koy def ba mu mot sëkk mu am deuxième pàcc mooy ñaareel muy les projet publics d'intérêt communautaire bu de nee projet public d'intérêt communautaire wax nañ ci ay programme d'entretien wax nañ ci ay programme de pavage wax nañ ci programme yi nga xam ni ay programme d'utilité publique ñu gis fii ñi koy def léegi nii ci programme boobu recruter nañ ci fi mu nekk nii plus de vingt cinq mille personnes de on n'a pas encore atteint tous nos objectifs. incha allah dinañ ko eggali am nañu yeneen programme yi nga xam ni Promoville moo ko war a def Promoville non seulement dina exécuter programme gis bu yàgg je parle de la région de Dakar pour ñu mettre en œuvre des programmes d'amélioration lii nga ni maa ngi koy fait l'objet d'une documentation qu'on va laisser à votre disposition muy dossier de presse boo xam ni dina wone pour l'ensemble des composantes li nga xam ni def nañ ko ci xëyu ndaw am na des mesures de soutien à l'initiative privée mooy comme ki ñu fi gis léegi DER di ci baax a baax a baax a baax la DER on peut dire que 141 000 bénéficiaires DER financé na leen pour des programmes yoo xam ni sur la première année c'était 23 milliards deuxième année bi c'est 23 milliards programme qui est en cours. président Macky Sall jeexalagul ak yéen doyalagul ak yéen moo tax tey on a vu toutes les composantes gis nañ fi des diplômés d'université gis nañ fi ñoo xam ne amuñu woon chance su jàng des charretiers ñu yàgg leen a jàppee comme des marginaux je puis vous annoncer le programme de Tricid dinañ ko en œuvre parce que politique d'urbanisation àndul ak ay charrette yuy daw en ville incha allah ce programme sera déroulé et mis en œuvre pas des autres métiers. La coiffure, je Je pense à la Je pense à l'agriculture. Sur tous ces métiers. À l'artisanat. Sur tous ces métiers. Le pape 3 mooy programme bi nga président am na ko yéene def ci juróomi at yi dina ko jël en

ci nga bokk yow ci nga bokk kii laa wax ci nga bokk xale bii ci nga bokk yow mii yow ci nga bokk yéen la ñuy liggéeyal yéen a moom li ñuy def jeex na. noonu la li ngeen wax noonu la. li ngeen def noonu la Pambali bi jaratuloo wax bilan bi wane na boppam mais je veux vous dire je veux bi président am gouvernement bi ko exécuter et je m'engage en tant que premier ministre à faire exécuter les directives du président tous les objectifs assignés par le président la République seront intégralement réalisés. waxuma ko pour campagne bi ñu nommé gouvernement ba tey dañoo ne teg président ne wax nañ yi mu ne ma Pape Malick du rapport du compte rendu won ma ma gis am na waykat bu ko doon wax won ma ma gis Pape Seck Pape Malick won nañu ñu gis incha allah incha allah nous mettrons des moyens additionnels à sa disposition nous l'encouragerons et nous l'aiderons à réussir. Bouloubaï, belle catégorie. Oui, Guinée AGTIP pour les projets d'intérêt. L'AGTIP sera soutenu davantage. Guinée Promoville. Oui, Promoville sera soutenu davantage. Guinée DER. DER sera soutenu davantage. Maintenant, maintenant, maintenant, maintenant, maintenant, maintenant, maintenant, ligne des filles, ligne des filles, dinañ ko def dans tous les départements. dinañ ko def dans tous les départements. wane li nga xam ni moom la ñuy def mais surtout wane li nga xam ni yéene di président di réew mi Marsala. Je veux que la population de Marsala, profitant de cette occasion, ngeen xaar tuuti rek tuuti rek ndax waa Pikine nekk nañu waa Poyol nekk nañu ko. Sénégal